sa xam sa tey xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix bu ngeen ma dégloo kon taaxirlu ma wax leen jaar-jaari Alburi doomi Biram Penda njéemé Njote Njaay di baayam ak seyna bu Amadou Yëla Jóob di ndeyam nii la ñuy nettalee jaar-jaari Alburi Njaay nii ñu ko mag ñi nettalee Alburi ngi juddu juddoo ca Jolof 1847 waaye bi mu am juróom-ñeenti at lañ ko yóbbu moom Alburi Njaay ca dameelu Kayoor mu yor ko di Birima Ngoone Latir Fall mu nekk fa nag màggandoo ak mbokk ndeyam Lat Joor foofa nag la Alburi jàngee xeex fa la jàngee xare ñu ànd ñoom ñooñu di xeex tubaab bi ndax booba tubaab bi dafa bëgg a noot Kajoor Alburi Njaay ànd ca xeexub kajoor ba ànd ca xeexub saalum ba nga xam ne màbba Jaxu Ba moo ko jiite woon waaye ba nga xamee ne mokkal na màgg na mat na ci la ñibbi jolof nag dem yang-yang ñu daal di ko fay fal buur ba ci atum 1875 waaye bañ ca tegee ñetti at di 1878 Alburi Njaay war a jàkkaarloog nag kii nga xam ne mooy gàngoor gi Amadou Cheikhou jiite baara dem mu dajeeg moom ca njàmme am ndam ci ko moom Alburi booba Jolof nag li ko sonal mooy ñàkk juboo ci biir néegu nday ak néegu baay noonu la Alburi war a jànkonte ak doomu baayam bii di Biram Njéeme Kumba Njaay waaye bi nu xeexee xeex yu bëri Alburi mujj am ndam ci kawam Alburi Njaay la ñuy waxtaane nga xam ne en 1881 Damel Teeñ Lat Joor mi ngi jéem a dajale boole Alburi Njaay bu Jolof almaami Abdul Bokar Kan bu Fuuta ak Eli Njëmbët mu waaloo di buuru Trasa ngir ñu ànd delloo tubaab bi ginnaaw ba nga xam ne raay bi kenn du ko tabax. noonu nag lañ dalee ci kow tubaab bi ay yooni yoon waaye diggante 1883 ba 1884 at moom yëpp li ñuy dal ci tubaab bi yëpp amuñu liñ bëggoon tubaab bi nag mujj am ndam ci seen kaw ba mujj daal di noot Kajoor. Alburi bi mu jéemee ba sonn ca Jolof xeex ngir Lat Joor tubaab bi bañ ko xañ li mu moom ndax booba tubaab bi teg na Samba Laobé Fall ci ni mu ko bëggee woon moom ngir nag Alburi mën a am noon bu tolloog moom tubaab bi jóg nag moom ngemb ko Samba Laobé Fall nga xam ne mook Alburi yarandoo woon ca péeyu Kajoor mu ngemb ko nag mu ne day songi Alburi Njaay ca yang-yang waaye mi ngi taseeg buur ba ci yoon wi xeex ba métti lool di juróom benn fan ci weeru juin 1886 ca Gille Alburi am ca ndam noonu nag la buur ba wéyee ànd ak Joor di ko jàppale di ko jàppale ba ca xeexam bu mujj ca Dekkale ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre 1886 ca Dekkale ca la Alburi wéetee ndax ñi nga xam ne ñoo doon xeex ci jamono boobu tubaab bi ñëpp daanu nan Alburi daan ne tubaab bi nanu jàmmoo tubaab bi ne ko nan jàmmoo Alburi ne ko nanu jàmmoo waaye du ko signé ndax da nga cee bind ne sama doom bu ne njaay daa war a dem ca l'école bee nga xam ne képp ku nu ku nu noot sa doom fa lañ koy téye ca ndar fa la Alburi jógee daal di dem dem nag bi tubaab bi dalee ci kawam 1890 24 mai colonel Dot si jiite leen Alburi Njaay daal di taal dëkk ba taal lépp daal di jógee Jolof noonu nag la ñu jëlee Jolof dénk ko Sàmba Lawbe Penda mi nga xam ne doomu baayam la woon waaye nag jubawun woon Alburi daal ne nag xeex du jeex ca la Alburi ne day fexe ba nga xam ne dana boole boroom doole yi ñu dal ci ko tubaab bi mu daa di topp penku nag ne damay demi Karta ca Soudan occidental 1890 di jeex ca njeextal at ma ca la àgg Nioro ca Sahel fa la fekk nag Amadou Cheikhou taal di doomu El Omar mi nga xam ne moo jëloon gànnaayu baayam ne day xeex ñoom ñaar ñu ànd nag di xeex tubaab bi nga xam ne Archinard moo leen jiite woon du colonel alburi ak ñooñam ñëw nag jàppale jullit yi nga xam ne ñu ngi doon xeex tubaab bi waaye gis ngeen de ànd ban yaakaaroon ak Samori Touré mujjut a am booba Samori moo jiitu wasulu Thieba Traoré moom it di buuru Kénédougou nanguta ànd ak ñoom Archinard nag daal di xool ne ñoom nit ñi ñun ñi ànduñu mu dox ca diggante boobu nag daal di yéeg ci seen kaw ca jaar ci kaw Ségou jaar ci kaw Mopti jaar ci kaw Diéné ba pare dugg Bandiagara avril 1893 mbokk yi Alboury Ndiaye Amadou Tall ne nag ñoom dañuy jóge ci penku dem dalak ci kaw tubaab bi xeex ak moom noona lañ jaaree biir Masina daal di nag lu mel na atum lëmm ñu toog ko biir Dori ba nu jógee foofa nag nit ñi nga xam ne fa lañ leen fekk ñoom ñooñe seen xel dala tut ndax ngànnaay yi ni mu bëree ndax fa lañ fekk ñoom yore Abdoul Alassane di buuru pëlu Birni nga xam ne dafa génnee woon réewam ginnaaw bi nga xam ne ñii ñooy Germain yi nekkoon ca Baboy te Issa Korombe jiitew leen ginnaaw ba ñooñu jógee Alburi Ndiaye nag Ahmadou Tall daal di nag dal ca kaw ànd boobu nga xam ne sooraay dañ ko àndoon jarma yi ak tuareg yi am ci ñoom dam li nga xam ne xam na ko ci xeex ak doole ji mu am ak xam-xam bi mu am tax na keroog bi mu songee l'armée bi nga xam ne Issa Korombe moo leen jiite mu dal ci seen kaw ca dàmbu am dam ci seen kaw ca wetu fleuve Niger 1894 ah buur ba jolof booba nga xam ne nag dafa gëccoon jolof lakk lam amoon ngir tubaab bi bañ koo jariñoo li ñu jàpp ci moom mooy nit la koo xam ne boo demee Niger tey ñu ne la képp kum jàkkaar loolu am na ndam ci sa kaw ba ca sonra ya danañ la ko wax ba ca pël ya danañ la ko wax bi nga xamee ne pël yu bari nag ñëw nañ ci moom ne ko dañoo bëgg a ànd ak moom ndax dañoo bëgg am seen jàmm moom seen bopp Alburi Njaay ak Ahmadou taal doomi Alaaji Omar lan war a jóg nag di xeex di xeex ak jarma yi di xeex tubaab yi waaye gis ngeen xeex yooyu ba mu bëree ñu jekk ba ci yàgg atee ca topp ñu ne dañuy dem Sokoto ngir nag mën a waajal song tubaab bi dal ci kaw tubaab bi ànd ca nag ak kii nga xam ne bañkat la woon di sultaan Abdourahman nga xam ne moom dafa bokk ak Ahmadou Tall ndax ca ndayam la ndax ndayam day Linguère ca Sokoto. Alburi Ndiaye Ahmadou Tall bi ñuy jaar biir réew mi nga xam ne mooy Kurfey guddi lan dal ci seen kaw ndax booba am na buuru awsa boo xam ne gumbi am na ñu waajal ci guddi gi ñu dal ci seen kaw ndax daf leen wax ne képp koo xam ne sama nit nga bu fekkente ne gan ñi jaar nañ fi bu leen ko wan bëccëg li ngeen xalaat ci moom bàyyi leen ba guddi ngeen dal ci koom ay ndaw xeex bu métti ñu jàkkaarloog ngànnaay yi nga xam ne ñooñ buuru euh, bagage yi moom moo ko yor ñu daag nag ndaw xeex bu métti ñu jàkkaarloog ñi nga xam ne nag buuru bagage yi moo leen jiite soog a nag wéy xëtt seen yoon ca yoon woowu ñuy dem Sokoto Ahmadou Tall ca la woppee wopp jooja ca la ñàkkee bakkanam ca la daanoo 1901 kon mbokk yi Alboury njaay luñ mën a jàpp ci moom mooy dafa dem Sokoto fekk fa tubaab yi xeex ak ñoom booba nag dosoo ak Awsa yi ànd nañ Alboury bu nga xamee na àgg na Kalala mu am nag ndëgg sarax gun ko fa tegal moom noona mi dal ci koom ca mbett googu nag lan ko reyee waaye dañ ko dëj dëj bu rëy daj ko dëjub jullit daj ko dëj bu rëy suul ko ca jumaa ji nga xam ne mooy ca doosa Alburi nag li ñu a jàpp ci moom mooy xeexkat la woon buur la woon bari woon nay pexe Alburi xeex naag tubaab bi Kajoor xeex naag tubaab bi Saalum xeex naag tubaab bi ca Niger xeex moom ba ca frontière u kooku mooy buur ba Jolof Alburi Njaay moom lañ doon nettali jaar-jaaram tey xam sa démb sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationale du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation massan Gueye assistant abu Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Goethe Institut